asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur lutv.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey mercredi 9 décembre 2020 ñu indiwaatal leen seen xibaaru revue de presse ma ci ànd ak Bouka Ndour ziar naa la. Amina Ndiaye maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal yëpp rawatina mbokku internet Lutte TV ni nga ko waxee rek. télé mercredi amina 9 décembre 2020 ñoo ko indi si yéenekaay yi. noonu la demee dañ koy daal di ubbee ak journal suñu laam mu daal di xëy di fësal ca xëtam gu njëkk Ama Baldé euh, futur roi des arènes bu fekkante ne yàlla nangu na ko comme ni ko journal bi waxee ndax nee nañu waa Pikine daal nañ koy ngemb bu baax a baax ngir mu daal jëli trône bi euh, loolu la journal bi xëy titre rek Amina Ndiaye journal suñu laam nga xamante ne ba mu juddoo ba ak maanaam boole seen doole boole seen am seen mënin seen xam-xam Amina ngir li nga xamante rek mooy que ne Ama Baldé mën a jot ci couronne roi des arènes bi. waaw comme ndaw yi ndax ginnaaw Balla Gaye Modou Lo donc moom mooy nekkaat troisième jeune bi nga xamante moom mooy nekk roi des arènes comme ni ko journal bi daal di bindee rek waaye réunion démb am na ci guddi gi anciens lutteurs yi ñoo mobilisé wu lan lañ doon waxtaanee. waaw mu mel ni Amina Ndiaye te ni tey ngir rek fuite bañ am wala ngir du du génn xëy mooy tax ñuy def ndaje yoo xamante ni Amina Ndiaye guddi lay nekk waaye daal li leer ba leer mooy ko ne dafa mel ni Pikine nag jël nañ combat bi au Amina Ndiaye ni nga ko gisee nag les anciens se mooy ki tey yaakaar naa ne ba <coughs> baleen ma magu Pikine yëpp tey ñu ngi mobiliser seen doole ni ma ko waxee rek seen xam-xam ak seen ak seen expérience Amina Ndiaye ngir dooleel ki nga xamante ni tey moo di Ama Baldé en tout cas Pikine armé wu na te ngeen mun nañ ko kaw ak lépp loo xamante ni war na ci combat bi def nañ ko ngir mu mën a nekk nag euh, roi des arènes ba tey euh, ci biir suñu làmb rek daal dinay ñëw ci cinq dernières saisons yi nga xamante ne Reug Reug ko tamit dund na ko tax na ku ci mel ni Reug journal bi dafa jàpp ne rek Reug Reug vol guy gi récolte loolu la journal bi xëy bind rek mu mel ne ñaari mbir yëpp andi na ku si nekk sa palmarès yi juróomi at yi ñu weesu Amina Ndiaye li nga am si nombre de victoire nombre de défaite ak maanaam li nga xamante ni rek Amina Ndiaye moom nga def comme palmarès si 5 ans yi Amina Ndiaye waaye dafa mel ni si Reug Reug la njëkkee. Reug Reug 8 victoire la am benn sans verdict ak benn saison blanche. waaw 8 victoire Amina Ndiaye benn sans verdict sans verdict benn saison blanche mu mel ni nag Reug Reug palmarès boobu noonu moom si si 5 ans vraiment Amina Ndiaye euh, euh, lu baax la ni ñu ko mën a waxee tey bu fekkoon ne tey examen lay def mën na ne tey dina dina dina dina jàll ak mention. parce que ah. tey boo defee boo defee 8 combats. Euh, boo amee huit victoire benn sans verdict def benn saison blanche Amina Ndiaye amoo défaite si si si huit combats wala si neuf combats si cinq ans loolu yaakaar naa ne vraiment résultat bu baax la. nee nañu bu ko guy guy fereenewul dina bokk ci ndaw yi nekk roi des arènes. waaw loolu la journal bi jàpp rek mooy que ne bu ko guy guy fereenewul mun na am mun na nekk si mun na bokk si ndaw yi teel a nekk roi des arènes parce que Balla Gaye suma juumul Amina Ndiaye nekk na roi des arènes si loo xamante ne yëkkul sax 10 ans te loolu yaakaar naa ne liggéey koy laaj rek ak maanaam détermination kon moo tax journal bi jàpp loolu ci rëg-rëg guy gi am na deux victoires trois défaites ak deux saisons blanches waaw mu mel ni nag Amina Ndiaye juróomi at yi ñu weesu moom moom guy gi maanaam a stagné par rapport ak bi muy a dugg ci làmb élan bi daf si boole woon nag ay tolof tolof feebaroon si amoon tamit physique boo xamante ni Amina Ndiaye nekkatoon physique làmb euh, ñëpp a ko doon ŋàññi si ak forme bi amoon leex yeeg biir yeeg yu demee noonu waaye dafa mel ni nag jamono ji moom ressaisiru na jëlaat na euh, li nga xamante ni tey maanaam moo di carrière am jëlaat ko amee fas yéene liggéey ba tax na daal deux victoires trois défaites la am ñaari saison blanche loolu moom baaxul benn yoon Amina Ndiaye. Euh, te premier défaite mi ngi ko jëlee woon ci building 14 euh, décembre 2008 Matar Diouf tamit daan na fi euh, ki nga xamante ni moom moo di guy gi le 4 avril 2009 Zos daan na ko 13 avril 2011 ak ñaari défaite la am ci Zos Tafatine tamit daan na ko le 4 avril 2015 Ama Balde le 24 janvier 2016. Boy Niang moom moo ko mujjee woon daan le 5 mars 2017. waaw Boy Niang moo ko mujjee daan Amina Ndiaye le 5 mars mu mel ne moom rek am na lu tolloog 16 victoires ak 7 défaites Amina Ndiaye. waaye li nga xamante ni moom moo di démarrage saison bi nag jamono ji flou total daal dina ci am ginnaaw bu ministre bi déclaré ni euh, fi situation bi tollu euh, li nga xamante ni moom moo di arène bi à moins que suñu njiitum réew tijji euh, bu ñu wu ci arène bi. waaw Amina Ndiaye rébellion boobu moom maanaam dama ko tuddee rébellion sax waaye ni tey mbëri nekk muy promoteur ba si amateur ba si jaaykat yi Amina Ndiaye képp ku am yaakaar ne rek tey maanaam tey am nga am nga part de responsabilité si làmb rek tey mbër yi war nañ a dajaloo def marche pacifique boo xamante ni tey dañuy jóge fii dem ministère des sports dem dem dem dem pourquoi pas ba buntu pale wane seen naqar rek tey foo ubbee soirée yi ubbi xew yi ubbi bëri transport yi di yëpp ba fees bus yi di surcharge ni nga koy gisee Amina Ndiaye yaakaar naa ne foofu moom war na ñu ubbi làmb ji Amina Ndiaye ñi ñi mën a dem bëri ji comme ni nga ko waxee rek soirée yi ñoo ngi di am euh, sa guddi presque nga dégg ñu daan ni diw tëgg na fenn boîte yi daal di fees dell euh, segam loolu noonu la ñu arrêté wul ji war naa mën a tijji yi buy buñ koy def huis clos sax di ko def pay-per-view sax ñu tijj ko moo gën a mbëri signé seen contrat yi toog ay at yi duñu bëre euh, Keba ku ci mel ni moom tamit daal dina ciy ay vérité waaw dañ ci wax rek moom nag jàpp na ne moom moom ay milliards yi lamb di dugal tey si réew mi tey xam nañ ko muy côté sponsoring muy côté leneen ak leneen kon yaakaar naa ne jot na nag tey lamb ñu jox ko gërëm Amina Ndiaye euh, ko waxee rek Bira Sène tamit euh, jaar dina ci yëkkati ay kàddu. waaw moom tamit li mu xam ne que ne rek mooy que ne maanaam na a nekk koo xamante ni rek moom Keba mooy wax jox ñëpp di nga xamante ni tey mooy maanaam euh, ñoom ñooy acteuru làmb tey déglu ñëpp ku si nekk mu déglu la déglu laa loo loo mën am lu mu si a jëlee ngir intérêt wu làmb. Euh, Keba Kanté moom nee na mukk ci àdduna musul xalaat nekk promoteur. waaw nee na nekk promoteur moom Keba xëy na nag leneen kay waaye promoteur moom nekkul loo xamante ni maanaam ay xalaat nekk na ci xelam. nekk na ci xelam nee na li nga xamante ni moom moo di licence bi du ñëpp ñoom ñoo ko mën a jënd. waaw li licence bi moom nee nee na moom maanaam maanaam maanaam euh, euh, tout le monde dafa acheter des licences mooy que ne ñëpp mënuñ jënd licence kon yaakaar naa ne mbirum promoteur moom dafa am rek xëy na si ñu muy si ñu muy yem rek ñi dañu nekk promoteur ñi nekk manager ñi nekk amateur Amina Ndiaye. noonu la ki nga xamante ni moom moo di Doudou Diagne Diecko tamit président des amateurs yëkkati na ay kàddu moom nee na je pas candidat ngir toogaat fi waaw du déposé waat candidature ngir toogaat fi Amina Ndiaye moom la Doudou Diagne Diecko di wax rek si biir journal bi mooy que ne nag ne loolu sax pour man Amina Ndiaye moo mooy yoon boo boo defee say mandat moom boo pare pour man nag war nga mën a bàyyi keneen mu yéegale liggéey bi surtout liggéey bu ki nga xamante ni tamit moom moo di Reug Reug ak Gouye Gui ñoom ñaar seen face à face daal dinañ koy envisager euh, taxawal ko ci euh, dimanche bi lee comme ni ko ñëpp di xaare waaw taxawal ko ci dimanche bi comme ni ko ñëpp di xaare Amina Ndiaye mu mel ne nag loolu loolu la journal bi xam ne rek que ne am nañ la source sûre que ne Reug Reug ak Gouye gi mën na am ñu daje ci émission jongante bi am TFM dimanche bi nii ko daal ñaari mbir au moins ñu toog gisee waxtaan ngir maanaam jéem a jéem a jéem a dëkkilaat laa mu tuuti Amina Ndiaye. Bombardier mi ngi wane ni nit bu baax la mi ngi wane ni tamit mi ngi bàyyi xel ñeneen ñi nga xamante ni euh, suñu borom may leen ñu mat sëkk ñi nga xamante ni ñoom ñoo di handicapé yi Bombardier mi ngi seen chevet di leen jàppale jeu de vie daal dina am nu mu def ñoom. waaw Bombardier au chevet des handicapés saisir Amina Ndiaye mu mel ne loolu nag a baax a baax la social moom Amina lu si waaye dafa doy rawatina jamono ji Sénégal nga xamante ni tey ñu bëri jotul seen ginnaaw waaye nag rawatina tamit handicapé yi nga xamante ni am Amina Ndiaye dafa am lu manqué si ñoom kon ñooñu moom euh, te warul di leen di fàtte kon Bombardier loolu muy def ñu ngi koy saluer rek di ko ci encourager di ko ci ñaanal réussite totale Amina Ndiaye. Ah, ci benn centre bu nekk ci Mbour lay xewee euh, jeudi 10 décembre bi à partir de 15h situé au quartier Espagne Mbaye Yékini moom tamit dina def face à la presse incha allah benn conférence de presse euh, ci alxames bi. waaw ci alxames gi moom Mbaye Yékini Amina Ndiaye structure yaakaar naa ne tey di tëgg làmb nekk xale nekk ndaw vraiment dugg ci làmb def ci batam fa làmb ji parce que yaakaar naa tey ni ma ko waxee rek tey làmb ji ñëpp am na ci part de responsabilité tey képp kuy nekk acteur làmb rek rawatina ñoom promoteur yi tey am na ci part de responsabilité parce que génne say millions financé ko te xamoo fi ñu lay teg tegul la fu leer tamit pour man loolu vraiment nekk na lu ñaaw au moins sax ñu recevoir promoteurs yi nga xamante ne am nañ génne nañ seen seen millions fere ko ñu xamal leen wala ñu wax leen lu leer pour mën daal moo gën maanaam dawloo bi ñu leen di dawloo nii. waaye commission centrale bu arbitre yi di nañu woote benn réunion d'urgence ci euh, tey ji euh, ci mercredi bi 9 bi à partir de 17h. à mu mel ne nag fas nañ fa daje rek def réunion d'urgence parce que gis nañ ne dañ leen a zappé si li nga xamante ni tey moo di bureau CNG bi te loolu yaakaar naa ne xëy na moo tax. ñu war a defar ab ndaje rek Amina Ndiaye. Euh, bu ko defee dañuy daal di jàll ak yéen ci journalu record moom nag ci wàllum làmb daal di ne euh, xëy samp ab laaj qui sont les cinq meilleurs de l'histoire maanaam ci wàllum euh, làmb ñan ñoo ci nekk cinq meilleurs yi experts yi nag daal di nañuy joxe seen avis ku ci mel ni Ibrahima Ndiaye ancien lutteur nee na Yékini le vrai roi Tafa le génie. Tafa le génie Amina Ndiaye mu mel ne nag les kii les cinq meilleurs de l'histoire loolu la journal Ndiaye nga xamante ne Amina Ndiaye moom xam-xamam yàgg na màcc na ci làmb yàgg na ci làmb nekk ancien champion moom nag li muy xamle mooy que ne Yékini le vrai roi Tapha Gueye un génie xëy na tamit am na fu mu ko teg joxe na ay argument Amina Ndiaye ñoom daal jàpp ne ñoom ñooy meilleur de l'histoire waaye Ambroise Sarr jàpp na ni Robert Less ak Balla Gaye ñoom ñooy meilleur yi waaw ak Balla Gaye la lim rek moom moom lim na cinq am moom père Ambroise Ambroise nekk nekk coach équipe nationale ñu koy nuyu de passage moom nag Robert Diouf lu mu la jox rek ak père Doubalès père Mbaye Gueye Yékini ak ki nga xamante ne Amina Ndiaye moo di Balla Euh, ki nga xamante ne moom moo di raay ba euh, tamit jàpp na ni Falan Cheikh Mbaba mbay Mbaye Guèye ni waaw ki nga xamante ne moo di raay ba bokk ci structure Luc Nicolaï en co moom tam li muy xam xamle rek mooy que ne Euh, Abdourahmane Ndiaye Falang ak ki nga xam ne moo di Cheikh Mbaba Bassi Robert Diouf Mbaye Guèye ak Yékini daal moom ñooñu mooy cinq nominés am si les cinq meilleurs de l'histoire Amina Ndiaye suñu papa ñoxo la jàpp ni muy meilleur Falaay Mbaye Guy gi ak Mbaye Guèye waaw baara baara Amina Ndiaye ak ak ak ki nga xamante moo di moo di Falaay Baldé rek di wéyjur Ama Baldé ak maam góor gi Ndiaye Amina Ndiaye ak ki nga xamante ni rek moo di Mbaye Guèye ñooñu daal ñoom la père Ibou Ndiaye ñoxo baay borom micro central borom ayca ayca ñooñu la tànn Amina Ndiaye waaw Max Margan tamit daal dina ci wax moom jàpp na ni Pape Kane Mbaye Gueye Robert Less ak Boy Niang 1 ñoom ñoo nekk cinq meilleurs. waaw wutee gis-gis mooy waral marchandise di jar Amina Ndiaye man mii tey boo ma laajoon mun naa la wax wax keneen ku la laajoon tam yow bu la neexee tey nga tànn say cinq meilleurs waaye daal ki nga xamante ni moo di Père Max nekk chroniqueur nekk technicien yàgg ci làmb moom tamit la papa de Tarkinda ma koy nuyu de passage moom nag ki mu jàpp ñi mu jàpp mooy que ne Pape Kane Mbaye Gueye Amina Ndiaye Robert Diouf Père Doubalès ak ki nga xamante ni tey moo di Boy Niang numéro waaw ku ci nekk nag la nga fekkee rek ak la nga gis moom ngay jugé ku ci nekk euh, gis nga ni mbër yi fii euh, gën mooy mbër yi nga xamante ne ñoom nga tànn depuis que nga commencé seetaan làmb ba tey ba tax na nag bokk yi ñuy suivre euh, dafa mel ni tey li leen leen ci seen xibaaru revue de leen jaajëfal. waaw Amina Ndiaye bëgg ñëpp rek di jaar ñëpp di ñaan jàmm bi yàlla bi ñu fiy na fi jóge si jàmm ak salaam Amina Ndiaye ba ñu ni delluwaat seen activité na ne Sénégal Amina Ndiaye réew mu si doole la tey dix personnes yoo jël kenn ci am salaire te salaire ba am sax doyu parce que ñàkk ña ko wër Amina Ndiaye kon nañ fexe rek dimbali nit ñi ubbiwaat activité yëpp nit ñi mën a liggéey Amina Ndiaye daani seen doolu parce que Sénégal ni ma ko waxee rek te neuf neuf personnes dix personnes yoo jël neuf personnes yëpp dañuy xëy di daw dépense da xëy liggéey ba ngoon jot ngir mën a am dépense wala nga liggéey ba ngoon jot ngir nga mën a am dépense